bikum ginnaaw xay jaam mu mel na ni juboo xam na ci diggante jëwriñ ju ñu dénk wàllug wér gi yaram ak waa kër docteur yi nga xam ne fañ doon geraw fan yépp si du quotidien moo ñu ko xamal yaw seetal démb daal fa ñoo dajaloo xamal waxtaan ci seen biir ba mujj nañoo xaatim déggoo ci fukki poñ ak juróom-ñaar critique yéene kaay mel ni ku naan alhamdulilahi ndax fukki weer ak benn waa kër docteur ñu ngi négocier ak a geraw waaye démb li tax wér-gi-yaram gi fa ñoo mujj deltu ginnaaw nangu càkkateefu gaa yi Le Soleil yéene kaay na fukki poñ ak juróom-ñaar yooyu dox seen diggante kon fañ nar a jëm mooy lan geraw ci wàllu kër docteur fay jeex tàkk te gouvernement bi noppi na ngir waxtaan ñoom bés bi yéene kaay na ko waa ànd gësëm ñoo ànd déggoo ak nguurug Sénégal ndax Diouf Sarr fexe na ba bomb bi bañ a kalaate te mooy geraw bi continué waat source a yéene kaay mel ni ku naan leen waa kër docteur dénk wàllug wér gi yaram gi Diouf Sarr ca tribune yéene kaay ma ngay xoo syndicat waa kër docteur ne fi mu toll nag moom geraw bi moom dakkal leen ko comme juboo nañ lu jëm nag ci mbiru assu soxna ma ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ànd ak dal te bàyyi yoon def liggéeyam bés bi yéene kaay mel ni kuy wax ak Diouf saar na ko boo lijjantee loolu ba pare am na leneen lu way xaar jàngoro ji ñu wax si buru hée mi ngi bëgg a jeexal sénégalais yi fa gën a bëri fa gën a yokk mi ngi rey rek laa si yéene kaay na ko xaarama leeralal la ñetti téeméeru doomu aadama ak juróom-ñeen fukk 399 yoo xam ne si buru moo leen rey ci 2021 bi fii Sénégal buñ ci waxu du baax de nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi boo moytu seen coalition ya fa nar a tas fa ñoo nar rayante ndax ku nekk fa bëgg nekk député ba tax investiture yi fa nar a métti ci ñaari coalition yi ni mel le mandat yi ne moo ñu ko xamal l'observateur na ko pourtant man nag faa gis ne Yewwi Askan Wi ñoom ñoo gën a nekk ci jafe-jafe maanaam boo moytu ñoom ñoo nara tas ndax ñoom foofa ñi bëgga nekk député fa ñoo bëri coalition ba gën a ku nekk naan man la moo tax seen tànneefu ñi leen nar a nekkal député du yomb ne ak fem bu bees waaye ba motul kàtt ga jaxasoo fa de te su fekkee dañoo bëgg a am ndam def cohabitation ak Macky ca assemblée nationale seen bëgg-bëgg personnel yi ak ambition yi fañ ko war yemale lu ko mooy du baax de li baax nag ci Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar mooy ay farandoram ya nekk Ndakaaru xam nga ñaata leen jox Macky Sall ci parrainage bi lu ëpp deux cent ah, fa ñoo njëkkoon jox Macky Macky xeeb ko waaye bi yoon li ñu ko jox moom bàyyi politique daal te wote député yi fas yéene wu ma bokk ba maa ngi yóbbu liste Walf Fadjri yéene kaay jox kàddu Farba Senghor mu Ablaye Wade ma woon ma ngay xamle ne Karim Wade juboo bi nga xam ne Macky Sall ko bëgg a juboo ak baayam Ablaye Wade loolu neexut Karim Wade de ah yow Karim coono bi muy dund yépp Macky Sall moo ko tëj kaso génnee réew mi xëy rek naan fa bëgg a juboo baayam Karim ne na man d'accorduma ci ci a de ndax Macky def ngàndaayam li ñuy wax transhumance maire kujje gi responsable kujje gi ñoom lay neexal di leen ànd ci wetam léegi mu jeexal leen de l'évidence yéene kaay di ñu xamal ne RP parti Serigne Mamoun Niass ba ña tëkku na fa ñuy génn bàyyi benn Bokk Yaakaar ca département bu Foundiougne coordonnateur ba Issa Ba ne bureau politique bu RP fa ñoo xamal ndaje jël dogal nag dakkandil seeni activité ca Benno Bokk Yaakaar wote député yi di ñëw fas yéene wu ànd ak Benno ndax ñaawlu doxalinu gaañi ndax fañ leen a seen gëdd duñ leen investir faale wuñ leen pesum kanam nag borom a koy fajal boppam moo tax yaakaar la jeexagut nag mooy jafe-jafe ya nekk ca poste source a na liggéeykat ya faa leen jàqal am na ñaari xibaar yu bon ca ñoom yu génn yow seetal seen avance su tabaski yi ak yeneen xew-xew diine yi fi mu toll dakkal nañ ko dootuñ ko jotati ba ci seen avance su salaire yi les si ko yéene kaay di ñu xamal na Macky Sall njiit réew mi xam nga fa demoon Makka umra ji waaye ba muy wër Kaaba ga fa la ko benn malien dogaale na ko Macky embargo bi ngeen def suñu réew ma métti na trop ngir yàlla xolaat leen li ngeen di def la mu def moom Baye Thiam ahlan mooy organiser journée islamique ca Medina Baye Kaolack lépp ngir rafetlu taxawaay ak liggéeyu imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ginnaaw tournée yi nga xam ne mi koy def ci réew yi wër Sénégal di tasaare diine ji l'évidence yéen moo ñu ko xamal tàggat yaram demi-finale Ligue des champions aller bu 19h jotee City mooy bal ak Real stade yéen a kaay ne nar naa saf nag équipe bu mag a mag bi Real tey moom xaw naa koo jàqal faay ragal ñu mbuqi ñu de bu ñu amee match nii rek da baax na waaye ragal naa du baax tey de suba nag xam nga lu fi xew fi mu toll nii jël vidéo jàmbur bu def yaramu nee nag wala def yu summeekoog wala ay audio ngay wax lu garaaw ñu tasaare ko ci internet bi su ko defee yow nga yàqu ya xet ni xaw a géy dootoo jarati dara ci dëkk bi li ni mel kañ lay dakk ci réew mi xam na ñoo xam ne sax bës lañ ci jublu nga am bës bu mu du nettali kenn nag mooy benn doomu réewu Nigéria fañ koo jàpp muy jaay yàpp mbaam léeg ko yéen a kaay ñi ko xamal la mu ñu xamal moom libération mooy mbir mu garaaw yow seetal benn xale bu jigéen bu xam juróom-ñetti at fañ koo jàpp ray ko ci ab bu yeggut ca diiwaanu Bargny allah yéen a kaay bi na lañ foog nag mooy viol tëddee ko ba pare daal di koy rey ka ñu bëggoon a rey mu rëcc moom it beneen xale la waaye bii xale bu góor la xam juróom-ñetti at benn waaye ko tër bëggoon koo rendi xale ba rëcc turbine yéen a kaay ne yëf yaa nga amee ca quartier Daaru Salaam 1 cité du rail te mooy a kaay moom fa xëy di laaj sénégalais yi ne waa lan moo tax suñ ministre yi ñoom duñ mës a démissionné tekki seen domba tànk ginnaaw buñ leen tuumalee ak tooxi doona guñ def wala ñu jàppaleen ci ak tappale ci gàttal luñ mën a def lu mu garaaw garaaw garaaw ministre sénégal yi doo ci dégg kenn ku tekki sa ndombal tànk te monte àdduna bi réew yu bëri hab ministre suñ ko tuumalee wala mu def lu na fa war a xam ngor ak jom ba tekki ndombal tànkam léegi nag suñ ministre lu tax duñ ko def mooy ba ñuy ca seen poste ya nag président moo leen cay jàppale waa ma ne yàlla xam na na tontu bi yéen ñi koy laaj sax xam ngeen ko fii nga nekk ministre mooy ne fa ngay xam xalal ju du xaaj du jeex ndax fa ngay gis koo xam ne ba mu nekkutee ministre xamu dara nekk ministre ay milliards yi milliards yi milliards xoto yu du xaaj du jeex seen doom yi di pasar pasaree moo tax kuñ fal ministre nga kontaan say mbokk kontaan waaye loo a tekki seen ndooma di président léegi lu tax moom it du leen dàq